mbokk mi gént gis gaynde ndax bari ay tegtal lu ci nekk wala kulli xaal li ci am solo mooy gént gis gaynde di la dàqe loolu rawxaan la incha allahu rabbi ki nga xam nag gaynde daa gént gaynde xuusi ko wala màtt ko loolu naqar la jafe-jafe la yoo xam ne dana jànkoonte moom wala kulli xaal mu ngeen jël numéro yi ni envoyé gént yi wala ko bëgg éméti wala ndoxu siti numéro yi 78 la 443 75 27 incha allah ki nga xam nag dafa gént war ci kaw gaynde loolu nguur la kilifa ko muy not la ak yokk la daraja la incha allah waaye ki nga xam nag dafa gént yor bopp gaynde loolu ak kilifteef la daraja la ak yokk la ak njiit la kon ki nga xam tamit dafa gént gis gaynde mu koy dàqe incha allahu rabbi rawxaan la kon gént gis gaynde dafa bari ay tegtal yu ci nekk wala kulli xaal tegtal yooyu ñoo ci ëpp solo jërëjëf mbokk mi yàlla